nag ki nga xam ne rek euh, moo di euh, leaderu Pastef bi euh, waroon na wuyu ji fële ca section de recherche bu Colobane waaye dafa xamle ne rek du wuyu ji ci boobule plainte li waral bile mbir nag moo di dafa am malaanu kiiraay fële ca assemblée nationale. ba tey rek ñuy àddu ci mbirum Ousmane Sonko kii di maître Bassirou Balde nekk nag avocat ci kii di Ndeye Khady Ndiaye di borom salon boobu di Sweet Beauty moom nag lam xam ne rek moo di kii di clientam ñu ngi koy ñu ngi koy teg pression fi mu nekk nii rek ngir mu changer version ba nga xam ne rek joxe woon na ko maanaam di ko xoqatal ngir mu gën a dugal ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko. waaye ba tey kii di mag ci Ndeye Khady Ndiaye di gën a dëggal boobule. mbir rek ginnaaw ba mu xamle ci ab benn audio boo xam ne rek da doon waxtaan ak Pape Alé moom nag la mu xamle rek moo di kii di magam dañ ko daal di proposer rek lu tolloog 40 millions rek ngir mu dugal ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko. waaye nag kii di Ousmane sonk moom nag mi ngi wéyal rek di ñax ay partisans ngir rek ñu gën a jàppoo rek doolew ngir xeex bile xeex moom nag la ma xamle moo di tuumaal bii rek du tuumaal bu njëkk ndaxte nag ci fan yi ñu weesu rek tuumaaloon nañ ko ci dossier de radiation topp ci nag ci dossier pétrole ba balaa rek ñu koy tuumalaat ci dossier 94 milliards yi. waaye nag mu mel nii rek kii di usmaan Sonko wetu la benn yoon ci boobu le combat ndaxte nag kii di maître Moussa Diop Mame jaara Fam daal di nañ ci euh, jàpp lañ ci xam ne rek moo di lii du dara lu ab complot politique ñoom nag daal di nañ xam ne ñu ngi ci euh, ginnaaw Sonko ngir rek xeex bile combat ci noonu nag ki nga xam ne nag moo di Barthélemy Diaz ak euh, Bougane Gueye Dany ñu ngay feddali rek seen kóllëre ak Ousmane Sonko di ko xamal ne rek ñu ngi ci ginnaawam te di ko koo waaye nag ki nga xam ne nag moo di eh, njiitum réew mi di président Macky Sall moom nag lam ca xam ne rek moo di di wax ay militant wam nañ ci mandu ndaxte dafa jàpp ne rek mbir mi c'est une affaire civile donc nag bu ci kenn àddu lii nag moo nekkoon li nga xam ne rek mën nañ ko jàpp ci euh, déclaration bi euh, Ousmane sonk amaloon démb waaye ci kanam tuuti rek dinañ euh, daal di dem fële ca cité kër góor gi kër Ousmane Sonko lépp rek loo xam ne jot na fa ruus rek ci xibaar dinañ leen koy indil ba rek ñuy wéyal ci Equivox wopp ba coronavirus moom nag mi ngi wéyal rek yoonam fii ci Sénégal tey nag ci altine bi ci 2361 tests yi ñu réalisé rek 297 ñoo ci jota positif ci 297 yooyu nag ñu ci am 100 cas contact 197 cas communautaire ak 7 dese ak 295 yoo xam ne rek ñu ngi ci bërëbu fajukaay yi ba tey rek ci wopp ba coronavirus fële nag ci université Assane Seck bu Ziguinchor lañ fa xam ne rek moo di fii ci ak fan yu néew rek boo woytuwulee rek dinañ euh, dakkal li nga xam ne moo di euh, cours yi rek li waral bile mbir nag moo di feebar ba dafa bëri lool. kii di Augustin Senghor nag nekk candidat ci ñiy xëccoo njiitum CAF daal dina amal ab conférence de presse fële ca Yaoundé ndege ni démb moom nag la xam ne rek li objectif am moo di. bu yéegee rek dina def euh, kémtilay kàttanam rek ba ñii di FIFA ak kaafa jàmm daal di delluwaat seen diggante jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur Equivox TV lii moo fi jotoon ruus tey ci xibaar ñu leen di jox di daje rek ëllëg incha allah